ألا إنه داع بغير كسالة إلى الحق كل الخلق في كل حالة هو النور ينفو عنه كل رزالة أفي الحق شق بعد ألف دلالة يؤم بها حق عن النذل يكرهون المختال ألا إن من أما الورى بجزالة وساق إلى الرحمن فرد جلالة هو المصطفى الهادي الورى بإبالة أفيه اغتياب بعد نور رسالة تقدمها ذكر kilifa yi ñoo dogal ne su jataay bi ñëw ndax kilifa yu bëri macha allah teew nañu fi waaye dina doy rek ñu xam ne Cherif Mahmoud Haydara mu ngi fi teew waaye kilifay Dalifort yëpp imam yi délégué de quartier yi maire ak ñi ko fi teewal ñoom ñëpp ñëw nañu waaye kon dañoo aadawoo ñu jiital mbir yu mel ni imaam yi ñu ubbil ñu defal ñu ñaan su pare allah ñu jox délégué de quartier yi ñu dalal kilifa bi ci quartier bi su pare incha allah kenn ci kilifa yi fi teew ñu jox ko moom it incha allah su ñu delloo lépp sëriñ bi ndax ñun ñëpp moom lañuy déglu moom moo waral ñu ñëw ñeneen ñi ñëpp dañ leen si boole rek mais incha allah lépp moom la incha allah euh, mu ngi bon boole ci programme bi ñu jiital balaa imam di def ñaan ñu jàng alquran ubbeekoo téere yàlla bu tedd bi ndax yàlla barke leen ñu jataay bi ko ken baadiraagel men ngel udditira quran insha allah o jàng mbele ma yimɓe mbarkinoro deftere allah teddunde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في سعر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون الطاعة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 الحمد لله رب العالمين سونو كيلف سونو سيرين شيخ تيرنو بال مولاي نيو دي لي زيار لو جوخ سا واتي واي نيان يالا دولي جام اك سوترا اك خيوال كونتان نانيو بو باخ تي ساك اويوف دي نيو في تي دالي فور fekk fii say taalibe say mbokk jullit say soppe loolu lu rëy la di ñaan yàlla ndaje bi yàlla na ci yàlla bind barke ak sutura ak xéewal ak faju ajo ak mujj gu rafet mahdi fadlihi wa jodihi wa karamihi taalib yëpp kontaan nañu jullit yëpp kontaan nañu ilimaan yëpp kontaan nañu délégués yi yëpp ñu fi teew ñëpp kontaan nañu amul kenn ku gëbëgul bég nañu ci sa teewaay ak sa jataay dëgg yàlla ndax sa wàccuwaay lu rëy la ci kanamu sunu borom ak kanamu mbokki jullit yëpp kon ñoo du ñu mën loolu ñaanal la yàlla mahdi fadlihi wa jiddihi wa karamihi yàlla yàggal sa taxawaay te barkeel ko loolu yomb na suñu borom di la nuyu di les ziara su ko defee ñu def ñaan rek ubbi jataay bi ndax yàlla defal nu tawfiix ak taysiir ak xusnul xitaam ci mbir mi bismillahi rahim asalaamualeykum asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen baalu aq di leen baal aq ñaan suñu borom mu boole ñu baal du yomb wax deug yalla ñu jël kàddu jàkkaarloog suñu serigne bu tedd bi suñu sang bu tedd bi cerno ban di addu waye dañu jël suñu cadeau rek sauf ko ci cadeau président imam yi muy imam Ahmed Diallo di wax ne suñu serigne ñu lay dalal dali for Foira yëpp comme ni ko maître de cérémonie bi waxee monsieur le maire Ousmane Diallo nim ko waxee <clears throat> noonu la amee kilifa yu bari teew nañu fi ku lim am koo fàtte waaye ni mu ko waxee képp ku fi kilifa ku fi imaam teew nga délégué de quartier yi suñu mag a nga ne la toog di góor gi Bilal jaa Dieng Diouf a ngi nii toog kon délégué de quartier bu ñëwul fii mu nekk nii ci jeetaay bi Ousmane Diallo ak Mamadou Diop ñëw nañu ku ma ci waxtu lu rek xëy na dama laa gisul waaye képp kuy ne délégué de quartier te teewuloo fii dafa am lu la téye waaye bés bi jaral na la ko ëppal na la ko ndax lu tax mooy ki nga xam ne moom moo waral bés bi muy Omar Diop ma lay toog Omar Diop kenn du lu bésam rawatina mu am ganu teraanga bu toll ni yow sëñ bi waxoon nañ ko fii atam ne la ñu ngi lay gën a Omar Diop ndax Omar Diop kat ku taxaw fii ci Dalifort la Omar Diop ku bugg nit ñi la Omar Diop ku nangoo sonn ci doomi aadama la kon maa ngi nuyu ñépp ànd ak Omar Diop di dalal suñu kilifa bii toog ñëwoon nga fi atam ba nga fa ñëwee ba dem diggante foofaak fii nga dellusi si jàmm rek moo fi am sëñ bi yokkute moo fi am teraanga moo fi am kon ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaan nga dolle ñoo ñaanal yow yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér waaye nga ñaanal dëkk bi yokkute teraanga wér ak wérle ba saa yoo fi ñëwatee ñëpp tal fekke mën laa mën mën laa teeru kilifa murit yi euh, ñu ngi nii toog Cheikh Landing Sané ngi toog imam Im Souleymane Touré ngi toog ak Jibi Faye ngi toog képp ku fi ñëwul ci taalibe yi tey dafa am assemblée générale bu daayira yi di def ndax di waajal màggal gi waaye bu duloon loolu taalibe murit yi kenn du leen fi jiitu ndax Omar Diop jaral na leen ko waroon nañoo yëkkati sargal la dalal la sagal la waaye nag yoon di yemul ci benn waaye bés boo fi ñëwatee incha allahu rabi di nga xam ne Omar Diop ñëpp la amal amal jàmm ñëpp la seqal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi siyaar ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman. asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. bandiraɓe wonɓe ɗo goto fof salminama inde mum e yettode mum Eh, puɗɗoro ɗen ɓe allah fuɗɗoriɓe joom gande en e imam en fa tabarakallah ceerno amadou diallo waɗi duwaw haale inde mabɓe kamɓe fof eh, alhaji mam kor haale inde kala délégué de quartier dalifor jasakallah heyrn haala ka yooɗi sañima rewi laawol hay ko jinnomi siftinde ko o siftini quartier o ko quartier lamarana allah waɗi ɓanndu makko ne teddi seeɗa mbaɗanen mo duwa yala rokkuma jam bijahindallah mbiyannomi ko imam samba diag ɓuri ɗo ɓadade kono machallah imam amadou diallo woni président des imam o nawarima meɓɓe fof e jam gande en ɓe fof fa tabarakallah ceerno hamidou yero ɓan emin jetta allah emin jettano oumar diob o allah e o ɗo kikiiɗe mo hokki en hannde rawane waɗi ɗum hikka kadi o waɗi kanko e denndangal ɓe o wongondi minen de danako ɗo min jibina garɗo e wuro ngo 72 ndeen ko gurel tokosel buubi e barakuuji hay gooto yiɗaa hodde ɗo kono noon jinnaaɓe amen ɓe wonno e hakkille mumen tan ko addude moƴƴuɓe waaɓenomaa nii alaa mo arano ɗo e wuro ngoo waɗi heen duwaaw kono aan ceerno min meeɗii yaade korko mo sikko badar jamma mbaɗɗaa toon teddinɗaa baabe amen yo allah yurmomo yaafoomo el haaji amadou diallo ñande heen mboɗo welti ha seeɗa mi waɗa ŋayel par ce que mi hewani yiide ɗum e yimɓe ceerno min jeehi toon teddinɗa wuro ngo fof par ce que kala teddinɗo alaji amadou diallo teddingo wuro ngo fof ceerno ɗeɗon maale sa yi ɗum e ko neɗɗo allah eyi min ñaaguiɗal ceerno da maire wuro ngo kanko woni capitaine bateau o hannde mamadou mengue ba yalla rokkuɗmo yettinde e dow jaam bi ndalla yo rew makko pour ɓamtare wuro ngo emin ñaagui ɗum ausu billahi min alcheytani rajim wa inni uhisuha bika min alcheytani rajim rabbi ausu bika bika rabbi an yahduruni alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وسرياته وقدمه وأمته وسلم أما بعد مبكي غناو بي سنت سانت يالا جولي تبي صلى الله عليه وسلم دي رافetlu jotaay bi bu baax دي rafetlu itam kaddu yu fi jip di sant Omar Diop mi nga xam ne organiser bes bi tay ci sant serignum bi nga xam ne set ci woyofam ak dalam ak teyam ak fonko doomu adama ak fonko talibem moko fi indi mu ñew fi ngir yokku ñu ngir barkel sunu dëkkuwaay ndax dégg nga ni ñu ko waxee ne bi mu fi ñëwee daaw ak ren ak yokkute rek lañu fi gis ndax ñoom nit lañ ñoo xam ne fu ñu toog rek jotaayu sunu borom la tabaaraka wa taala ndax ñoo toogal yàlla ci kaw suuf ndax yàlla dafa wax ne inna ja'alnaakum xalifatan fil ardi def naa leen ngeen wuutuma ci kaw suuf waaye dafa am ñoo xam ne ñoo taxawaay taxawaay boobu te moom sëriñ bi njort nañ ñu ci taxawaay boobu ci la bokk kon ñu lay sant bu baax di la dalal di la yaatal di rafet rafetlu itam maanaa ñu jël ay ndénkaane rek yoo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba dënkoon na ko ay taalibeem te ndénkaane yooyu bu ko waxee mooy jullit yépp la ko ndax mo wax ne kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yaxida siwaahun intama ila jilani aw intama li ahmad tijani aw li siwaahuma min al aqtab is kulluhum qatan ala sawabi mo wax ne wirde yep wirde wo ci jàpp da nga am ngeureumal yàlla ndax sëriñ ba ko sos ku ragal yàlla la ku teewal sunu borom tabaaraka wa taala la kon la mu la sant boo ko defee danga nga gisanteeg ndiga ngërëmal yàlla ëllëg mu ne nag mu ngi cité ci sëriñ si ku mel ni Abdou Khadir yi ak ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sërif radiyallahu anhu nee na ñooñu ñëpp ak ñeneen ñu dul ñoom nee na kenn ku ci nekk la mu nekk dëgg la moo tax kon maanaa sëriñ si bu ñuy digle digle bi jullit yépp ñoo ko moom moo tax mu ne wasaytukum yaa man taxallaqu biya fi sirrin wa jahrin li wajhi rabbiya maa ngi leen di dénk yéen ñi aju ci man maa ngi leen di dénk yéen ñi aju ci man ci lu feeñ ak lu nëbbu waaye nag dénkaaniw leen ko ngir man maay Cheikh du Bamba waaye dama leen ko dénk ngir sama jëmmi borom moo tax ma dénk leen ko ndax looy def te yàlla taxul rek yàqu na àddina du yegg àllaaxira waaye looy def yàlla tax rek loola am na njëriñ dana jëriñ àddina dana jëriñ àllaaxira moo tax mu ne an ko muharrama wa ma kuriha na ngeen bàyyi lépp loo xam ne dafa xaram buleen ko jege ab jullit warta jege loo xam ne yàlla da koo tere ab jullit dëgg-dëgg du tabe rek du mën sëgg siggi rek waaye dafay bay lépp lu yàlla tere comme ni nga xamee ne ni la julli mel ci nit inna salaata tanha anil faxsaai wal munkar day tere nit ki loo xam ne lu bon la ak lu ñaaw da ko koy tere moom julli kon jullit lépp lu yàlla xaramal daf ko war a bay moo tax mu ne maa leen koy dënk ak lépp lu ñu sib waaye nag maa leen koy dénk li wacc wajhi rabbikum ngir seen jëmmi boroom moo tax ma leen koy dénk dénku ma leen ko ngir man maay seen sëriñ waaye dama leen ko dénk ngir seen jëmmi borom wa kullu mustabiha ak lépp loo xam ne dafa lënt leeru leen bu leen ci dugg bëri tey ci àddina bi loo xam ne jaxasoo na dugg ci loo warta dugg moo ko waral ak wax loo xamul ak jëf loo xamul loolu moo ko waral waaye bu fekkoon ne ku nekk lu muy def da koo xam kon manaa jàmm rek mooy am waaye nit ñi mel nañ melukaan woo xam ne fu ñu far rek duufal ko rëyal ko ndax par gañ ca par moo tax dutuñ ci gis lu bon lu baax rek lañ ciy gis te lu bon amul place nekk na ci ku baax nek na ci fu bon lu bon amul xet xet wu nek amna na ku bon amna na ku baax kon bax yàlla moko yor te mokoy joxe te kuko ko neex la koy jox liman shaa minkum an yastaqim wa yawma tasauna ila an yasa allah rabb rabbul alamin ku mu neex ci yéen ngeen jup way du neex kenn te yàlla la neex yàlla moy jubal yàlla mooy teg ci siraatul mustaqim yàlla mooy ki nga xam ne moo ñuy jox li ñu bëgg tey ak li ñu bëgg ëllëg yàlla rekk moo fi nekk koo mënta jàpp koo mën a jàpp itam yàlla la jàpp moo tax ëllëg yàlla mooy joxe aljana ci yërmandeem waaye maanaa aw xeet walla ab tarixa du joxe ajjana ajjana la koy joxe mooy sunu borom tabaaraka wa te mooy nga jaar ci ngërëmam dafa am ku ñëw ci sëriñ tubaa ne ko dama bëggoon ñett ba ñeent mu ne ko dama bëgg nga bàyyi ñett ba ñeent mu ne ko dama bëggoon gudd fan lool mu ne ko del dox ak bokk te bañ koy dokk kon danga fi yàgg mu ne ko dama bëgg alal lool te ragal ak ñàkk mu ne ko nangu loolu liggéey te bañ a yàq soo amul lu bëri kenn du lay kenn du la yërëm mu ne ko dama bëgg aljana lool mu ne ko li borom aljana yi santaane dee ko def kon danga dem aljana mu ne ko dama ragal sawara lool mu ne ko li borom sawara yi tere na nga ko bàyyi loolu rek moo la ci mën a musal mu ne ko dama ragal dee mu ne ko ñoo ci bokk yem ku juddu danga nga dee dee jarut ut gàllaaj jarut ut garab jarut takk téere jarut tangoo saafara ku juddu rek foo nga dee kon maak yow ñoo ci yem dégg moo tax mu ne man allima jamihan fal yu faarixa koo xam ne xam ne yii ma wax na tàqali kook moom bàyyi ko na bàyyi lépp loo xam ne yàlla da koo tere su bëggee nga ngërëmal yàlla na ko bàyyi bu dee taalibe taalibe Cheikh Ahmed Tidiane li yàlla santaane ca lay sax kooku mooy taalibe Cheikh Ahmed Tidiane li yàlla tere da koy bàyyi kooku mooy taalibe Cheikh Ahmed Tidiane moo tax taalibeem aljana rek lay dëkk waaw aljana rek lay dëkk waaye nag du taalibeem du ci aw yére du ci mbaxana du ci kaala taalibe bi jikko la jikko joo xam ne danga koy jëmmoo waaye doo ko mbubboo ndax mbubbukat boo dee dañ koy summi waaye jëmm moom moom la ñu yóbbu bàmmeel kon dangay ngay jëmmoo sa tarixa danga koy jëmoo waaye doo ko mbubboo jëmmoo ko nag mooy ngay def lu baax di wax lu baax di jë di di di yéene nit ñi lu baax kenn mënu laa tere am lu baax àddina kenn mënu laa tere am lu baax àllaaxira loolu mooy taalibi Cheikh Ahmed Tidiane mooy taalibi Cheikh Ahmadou Bamba waaye du maanaa sol mbaxana mu ñuul rek ak dàll bu gudd ak yére bu rëy di waaxu ci mbedd yi rek ñu naan ab murit nga fekk na déedéet du la murit murit ci xol la isil muridu laa du abada xayru rida rahmaanu aysul xasada murit mooy koo xam ne bu xayee ba jant bi so ngërëmal yàlla lay sàkku waaw bu jant bi soxee mu tëdd ci ngërëmal yàlla loolu mooy moom lay fanaanee bu yeewoo ca lay xayaat loolu mooy ab murit kon ab murit yombul du maanaa ab yére rek la noonu la tijaan mel itam ab tijaan itam yombul du naasiril xaq bil xaqi rek dégg nga de wird ko ca jàkk ja ak wéy ko ca jàkk ja génn doon tijaan te jabari jàmbur doo ko bay doomi jàmbur doo ko bàyyi alale jàmbur doo ko bàyyi deru jàmbur doo ko bay kon su boobaa sa naasiril xaq bil xaq boobu jëriñul dara jëriñul dara ci kanam Cheikh Ahmed Tidiane waaw ndax maanaa jëfandikooloo ndigalam booy jëfandikoo ndigalam kon lépp lu yàllay tere da nga koy bàyyi waaw comme lu Cheikh Ahmed Bamba wax léegi ne digal naa leen lu yàllay tere na ngeen ko bàyyi wa laasimul waajiba wal manduuba na ngeen takok lépp lo xam ne dafa war wareef la wareef nag mooy loo xam ne dañ la koy teg te du ko te nga war a koy def danga ko war a def te jullit wareefam mooy lu baax mooy wax lu baax mooy def lu baax mooy jëf lu baax mooy yéene nit ñi lu baax mooy di ñaan lu baax loolu mooy jullit wama ubbiha ak lépp loo xam ne yàlla daganal na ko ku mel noonu taxtawoo taxari ba danga làq jegeeg son borom bu baax da nga jege yàlla bu baax wa laasimu taallama al ilma maha talasumi al amali fi ma suriya ngeen taqoog di jàng xam-xam te boole ko ak jëf jëf te jëfe itam loo xam ne charian la ndax jëf bëri na waaye am na jëf yoo xam ne wute naag charian kon jëf loo xam ne ni loo naag charian baax na bu baax a baax mel na ni suñu takk yi ci jàkk yi bu ñu takkee ba noppi séet bi nga xam ne moom lañu maye puudaram bi mu puudaru du yegg ci jëkkëram ndax nit ñi koy félicité yépp dañ koy fóon te jabari jàmbur la waaye félicitation doy na rek waaye jël sa lex teg ko ci lexab jabari jàmbur naan ko félicitation sëy bi yàlla na yàlla def barke dégg naan daal yàlla defu ci dara loolu fekk na maanaat jubloo boo juboon doo ko def kon ku jub da ngay xaar sa soxna te wacc soxnay jàmbur joxe loxo bi itam bari na lool ci góor ñi ak jigéen ñi te loolu sunu borom da koo tere donte da ngaa rus nit ki ba bu la joxe loxo nga dem bañ naa koo jox loxo ngir dama koo rus kon maanaam rusoon yàlla moo gënoon nga bañ koy jox loxo moo gënoon ngir nga rus yàlla mi la ko tere yàlla mi la ne bul jege kon laal ëpp na. kon laal ëpp na kon maanaa xam naa ne waxtu wi dafa xaw a xat moo tax du ñu mën a guddal waxtaan wi ñoo ngi sant bu baax di ñaanal Thierno yàlla na ko fi yàlla yàggal bu baax a baax taalibe yi yàlla nañ dégg ndigalam te jëfandikoo ko ndax ñu dajeeg ngërëmal Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu baax bii nga xam ni ginnaaw yàlla moo tax tey ñu daje fi muy alxaaji Thierno Yoro di borom jikko di kilifa gu am yermande bari ñewante te wacce bopam lol te waron mën reuy may nu takusan ji nga xamni nit man na fe amé tuyaaba juko duggal dugal man na fe am tam tuyaaba juko farali bakar ndax toogandoog borom xam-xam lu tollu ci ben minute yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam mel na ni ko toogandoo ak man te képp ko toogandoo ak man wajabat lawu chefaat yi sama ram mu ñeel na la kon bu bokkee fi mu bokk am ciir bi mu am ci maamam Mawlana Cheikh amul fuuti xam-xamam may ko ko tegginam may ko ko baayam sëriñam na Bachir ak njaboot gi ñëpp ñu ñëpp ñu xam ne dañu ko fonk ngir jikkoom fonk ngir xam-xamam mu taamu soppem bi wëllëram wi alxaaji Omar Diop ñëw sarax ñu jëmmam di ñun waa Dalifort ñun ñu war a ñëw nag war a feetu ci tàkkusaan gi kon kenn ku ne tey amel nga ko fatiha ak falaxek naa si salaatul fatiha ñu may ko ko ngir fanam gudd ndax ñu mel nañ ñi yàgg fi njëriñu askan wi lañu kon Thierno ñu ngi lay nuyu di la di la wax marhaban ahlan wa sahlan di la xam ne sunu xol sedd na guy guy ci yow di la seedeel tam sa mbokk taalibi bii daal di alxaaji Cerno Omar Diop lii délégué de yi wax représentant bu maire wax ko te ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk mën a seedeel lu mel noonu mooy Omar Diop ku baax la Omar Diop ku mën a sonn ci nit la nitu dëgg la xamul caaxaan xamul fo te lepp lu muy wax ci ginnaw nit man nako wax ci kanamu nit lolou dalé for gep seeral nañ ko ko njambaram ak fitam mo tax mu am takusan di mel ne ji xaro xaro xaru tey ba tay ren mo sun deuxième édition yalla ñu dem ba tok 55 édition te ñun ñep ñu fekké ko yalla man nako sañ ko yalla ko yalla def ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di nuyu imam yi di kontaan bu baax ci ñom di nuyu sama rak ki ma bokal bay di sama wëllëre di bayam ma sopon ko lol al ko lool muy hadji cheikh muhammad salif mbay mi nga xamni al waladu sirru abihi xafisahullah wa raahu ayyadak wa ammaraka fa sa bay tegon tankam yal yalla may nga tek fa sa tank tabarakala sa generation yi kenn merewula ci ngi nuyu imam cheikh mamoud ñu andal di nuyu imaam yi dali foor yëpp di nuyu itam waa daayira mutahabina fillah coordination baa ngi fi li alxaaji Souleymane Touré wax nag doyoon na sëkk rek ku fiy jóge rek ngi am loo yóbbu ndax lii mooy discours à la nation discours à la nation yi président dal la république di di wax ñuy xëy di ko reprendre mooy lii boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw seetal loo teg ci seeni nopp teg ci seeni xel ba bu ñu ñibbee yóbbu ko mbaa bu ñu ko yóbbu tam bu ëllëgee boo demee sa kanamu borom buñ la leen lu tax nga dajale mbooloo mi di nga am lay bu tax boo mën a wax ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla ko jàkkaloo di nga wax dajale mille personnes ñëpp toog ngeen nekk ci seen bopp nekk seen bopp ba tekki rajo yee dem kenn jëlewu fa dara yàlla na ci yàlla musal wax dëgg yàlla tey sant xel xel daal na ah, kon nag sama rakk sama xarit al alim daf ma poñe waaye lu ñëpp wax maanaam lu ñëpp bokk loo ca wax baax na suñ ma joxuloon kàddu gi duma ci mer te yàlla xam ne bi may ñëw itam suntuma woon ni dinaa yëkkati kàddu ndax man ab taalibi rek laa bu ñàkk solo di dallu dalifoor di ndawal dalifoor fu ma nekk fu nekk dalifoor laa fas yéene nekke ngir ragg dara dalifoor ak yóbbu turu dalifoor foo xamante ne nii dalifoor ak gu fa mbaa boog ñu ko doon dégg te dégg ko dégg nu ñaaw mbaa ñu bañ koo xam loolu ci ñun ñi porté message boobu ñun ci la ñu bokk waaye def fi ay cérémonie di jël kàddu ak di jiite dara taxul ñu taxaw di ñaan Thierno Yoro nga ñaanal ñu itam ñu feddale suñu kóllëre rek yow sopp nañu la bëgg nañu la fonk nañu la def nañ la ci suñu xol yàlla xam na ko jërë ngeen jëf gi rek laa naa ko yëkkati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu laqad zurtuhu rabbi wa zurtu diyaarahu وجاورته بالفضل منك وداه وإن لم أكن بالقول والفعل جاره بحب رسول الله نرجو جواره وحاشاه يغزو عن فصدائه السقوط الحمد لله الذي هيأنا اللقاء في هذا المكان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يجمعنا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقل يتودي الله سبحانه وتعالى جود النبي صلى الله عليه وسلم يتودي الله كدي الله نيونان دي ان هاتو تردن كدي هونو نيال en tawanoma ɗum mo wuuri en ñaaguima allah hitande ndeɗo hesere ko woni hen moƴƴereji e barkeji e teddule e peewole e arsuko yo allah feccu men hen gueɗe men kala ko woni hen e musibbaji e keeferu e faasigagal e naafigagal e fofoof ko ganduɗa ene woɗɗina neɗɗo o diine yo allah dandumen hen danda hen ɓesguji men min calmini min juurima dendagal wonɓe ɗo foof en ñaaguima yurmede allah kisal allah e barke allah yo allah ɓeydu ɗum e jonde nde eyyi min ngala ɗo noon konngol saabu so tawi a ari a tawi ɗo jignaɓe ma a tawi ɗo seeremɓe ɓa a tawi ɗo kawmiraɓe mawniraɓe e babiraɓe konngol ala ɗo kono noon mataw ko yamirore tan e kadi aada ene yara tan jinnaɗo o no wonirno ɗo ni min barkinoro kadi pour ha ceerno men o jinnaɗo men o welto hen ono konngol ngol ko ngol hewata ko konngoli eh, toɓɓe ɗiɗi ha tati holi ɗin konnguɗi ko ruttodirde tan duwaw e wonɓe ɗo ɓe emin gannino inchallahu rabbi enen almuɓɓe ɓe yaade ha to ceerno o to jignaɗo o ceerno men ceerno hamidou yaro duttenmo duwaw ko ɗum hanno ko ɗum fotno kono noon tawa laawol fi kam mi yihino hijjore eyi ko noonne kadi arde ɗo ha ɗo darifort tawde ɗe alma meɓe tedduɓe wonɓe ɗo ɓe wurno wurdunoɓe e ceernajo o almameɓe ɓe ko wayno ceerno oumar en ceerno habibou en e ceerno samba e dendagal a imma en imam diallo imam touré ha yetto e oustage mbayi e dendagal mawɓe wonɓe ɗo ɓe so tawi mi haali ɓeɗo heddiɓe ɓe foof kamɓe fof ɓe naati hen eyyi ko nonne kadi mi tawi ɗo kadi mo ganduɗa kañum fonno ƴettude konngol ngol kañum jeeyi konngol ko ceernam ko kawam ko mawnam ko jinnaɗo am ceerno ceernam ceerno mouhammado sow omono jooɗi ko kanko jeeyi konngol ngol ni konngol ngol wona konngol am ko kanko jeeyi konngol ngol kono mataw ko ruttodirde e mabɓe duwaw tan so ɗum gasi kanko mi rokkamo konngol ngol saabu ko almudo ceerno ko guurduɗo ceerno ko ganduɗo ceerno e minen noon min jooɗaki ɗo hono jonde amen min jooɗi ɗo ko jonde jignaɗo o mataw ko ɗum min garani ɗo saabu ko hadara makko o min lomti kono min wona halifaɓe maaro min lomti ɗon tan golle ɗe kam gila ko ɓooyi eɗen gondi heen eɗen enen nawe kono noon ko ɗum min ñaagi allahu subhanahu wa taala saabu golle ɗe kanko wona golle makko ko golle allahu subhanahu wa taala ko golle qur'ana ko golle nehde julɓe ko ɗum woni ko jinnaɗo men oɗo woni e dow mum ceerno yaro ɓan ceerno hamidou yaro ko kamɓe goni nehawɓe pittali ɗi ko kamɓe goni tarbinoɓe haqqillaji tarbiyatul aqliya tarbiya al badaniya tarbiya al nafsiya ko kamɓe ketti hen ko kamɓe tarbinta hakkillaji ɗi ko kamɓe nehata pittali ɗi ko kamɓe tarbinta eltata terɗe ɗe ko kamɓe gallitta ɓe moƴƴina ɓe jonna ruhuji ɗi mbawa yettade allahu subhanahu wa taala fofof oɗo noon kadi sababu o ko goto woni ceerno men jignaɗo men ceerno oumar diop so yimɓeɓe mbawi rendude ɗo hande joɗima hono ndeɗo jonde ɓerɗe ɗe foof enen belti haqqillaji foof enen deeƴi omo waɗi hono ɗum ɗo ala ko yakori hen so wona yimɓe ɓe foof yooɓe gon gotum te ko ɗum ɗon woni diine l' islam ceerno en ko ɗum gonno allah ene jogii jiyaaɓe mum ɓe ngannduɗaa ko ngollatnoo golli minal muminina rijalum sadaqu ma ahadullah alayh fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdilan ene e juulɓe worɓe ɓe ngannduɗaa eɓe ngoomɗi ko ɓe ngaadondirno hakkunde maɓɓe e allah woni ligganaade diine l' islam o nehde ɓiɓɓe juulɓe daranaade tariqatu tijaniyo o ɓe darima ɓe mbaɗi ko ɓe mbawno soɓe jihi kadi ɗum gasani koko jokkata ha ila yawmiddin mayde kañum wona wona gacce ko nelaɗo wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka mayowo koɓe mayo mayoɓe nelaɗo yeehi dina o o dartotako ko dine allah ñanden mbeɗa yewta e sukaɓeɓe mbeɗa haalanaɓe mbimi ɓe hay tariqa oɗo mo birdeten tariqa cheikh na tijani wona tariqa cheikh tidiane ko tariqa mo ngannduɗaa ko yamirore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi kamɓe fof kadi koto allahu subahanahu wa taala um, ummi wadde noon ceerno oumar min mbiyata ko ceerno cheikh tidiane no hawruno e ceerno makko oya mo haalaka innde mum o ceerno mo innde makko haalaka o ceerno cheikh no yetti ɗon nde jokkodiri e makko ɓe mbaddi mo kataba kono ɓe kaldani on sahaa o ƴetti ko rokkano ɗon ɗo ari ɗon nde yimɓe ɓe ndendinɗo ɗon ngaalu ha heewi kange ha heewi dokkimo o ƴettiri fof o totti almuɓe yiyoɓe ceerno o o wiɓe son jeehi tottan ceerno o yo defanomi laawol ngol on sahaa maayo ngo ene waɗi khatar maayo ngo ene dilli omo foti ɓennude omo yaha hajju omo yaha misra ndo ɗum ari nde o wimo ko jiita bi mahbubin arsalahu mahbuban yani cheikh tidiane mahbuban inda allahi fi dunia wal akhira o wima addani kam ko yiɗa woni kanŋe kono noon kadi nelduɗo kanŋe o onne kadi ko jiiɗa annene kadi an ka do ka e dalifor ka kange kono cierno mo gadduɗa ɗo yimɓeɓe fof ko yiɗɓe mo wadde non addani min do so wana duwodirde cierno addani min do so wana jaɓɓade cierno min jaɓɓodiri e mum hono no min mbanno ni min kistitina kadi on aadi addani min do so wana kadi sennande cierno yo andu almuɓe cierno ahmed salif mbay be be gondumi wonbe ɗo ɓe guila e mahmoud so cierno abdourahmane jay cierno ahmed tidiani be do sukabe gile cierno ummi e galle he eɓe deri darnde tindi ɗum ko gila ceerno ene wuuri eɓe nder yiɗi ko ceerno ummi ɗon ko eɓe jokki darde nde wadde wona min ɓe ƴeewi ni kono ɓe ndiwi ɓe ƴeewi ceerno kono noon kadi ɓe ƴeewino kam saabu minen gonduno ɗum eɓe jagguno tan ko fofof ko gootum saabu dine l' islam noon yarata ceerno ɗum meɗe sennuma ɗum oɗo ceerno ahmad tidiane kala ko woni e dalifort e moƴƴere o meeɗa haalandemi e dalifort ko moƴƴani sona ko moƴƴi ko ñootowo ɗum noon o o koppiyi ɗum o jangui ɗum koye jinnaɗo makko ceerno oumar diob wonno ɗo ko mbimi nane ko gonɗuɓe aadodirnoɓe allah ɓe hen jeehi holɓen goni yaaɓe ɓe ceerno ahmad diallo adinoɗo wonde o yeehi ceerno ahmad salif mbawi ari wondi e mum onne kadi yeehi kadhalika ɗum ɓe jaari ni min mbiɗe siftoro tan ceerno tiire mum no wano darade ni wona ɓoyani haydar min ke goyanmi ko hooram ñande tawmi omo taaƴi kuccinmi e makko ƴewmomi kanko mi woyatamo saabu mbeɗa andimo gandal gawri oɗo ko jiyaɗo allah kadi wattande gurnam makko o holli kam tasarrufat uji ɗi ganduɗa mi haalata e makko ko woodani saabu ko ceernam ko jignaɗo am kala ko gandumi kanko andinimi hannde kala ko paammi kanko famnimi o holli kam aduna o holli kam fofoof o holli kam no mawɗo teddinirte no suko gollo gollodirte no neɗɗo wurdata e hakkude rendo mum mi faamiɗam gurdam wadde mi haalata e hakkude makko e yam e makko mbiɗa hirsi haalde e ceerno ko ganduɗa wona noon kono o holli kam ko jiimi ko gandu ko ganduɗa jangguinimi minne ko yomi wat feere mi huuna allah mi rewa allah mete mbeɗa jeeya e yimɓe allah ɓe kanko kay allah waddimo hen kanko kam o yalti o ɓoccitima aduna wonno aduna enen foof eɗen gandi a duniya fo foof so tankadi duniya bi afrahiha wa sururiha wa diqiha wa usriha wa yusriha wa tantahi l amar bi tuliha wa qisariha ويبقى ويلقى الجميع ربه ربه ربها سبحانه وتعالى ويلقى الجميع ربهم سبحانه وتعالى تونون الحين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أدونا كو فوف كوكو غسر كو ميتي فوف كوكو غسر سو ياجي غسر سو بيتي gasat tampereji caɗele gasat ها لابا gurdam سو جوتي كو juurata اكو ko كو فوف يو باركينتام كوكو tan ها لابا wadde noon sa andi ɗum koko gasata ene waɗi yaw mamma ma hawre allahu subhanahu wa taala ko gollunoɗa foof sa ardani toon e ɓernde lamde tos a, a, a, mi wi ha natta aljanna saabu aljanna ene yaaji ceerno meeɗi wiide yimɓe fof ko yimɓe aljannaji en ko goonga wamalil ubbadi siwal firdawsi mansilatan wa in hafaw hafwatan fa rabbu gaffaru yimɓe rewoɓe allah ɓen ko yimɓe allah tan ceerno e noon ɓe gandi ɓe ƴetti aduna ɓe mbaɗi ɗum maayo maayo ngo ɓe ƴeewi ɗo ɓuri luggidde ɓe jehi toon ɓe nganndi aduna o ko koomte ko fofof ɓe ƴeewi laana ka ngannduɗaa woni kulol allah e dewal allah ɓe ngabbi e kan laana inna lillahi ubadan ibadan futana nadaru dunia wa khafu lfitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana jaaluha lujjatan wattahadu saliha al amali sufuna kamɓe ɗum waɗi allah foftiniɓe hen ceerno hade yaade kala kala kala makko gasi ala ko mbiyanmi ceerno i so so waɗino niide fof kala ko addete fofof makko o timmini ha timmi kono noon min mi wawa famde ko ma yo ala mimmi ɗum mi meeɗa gumde ɗum mbiya tan komo heddoɗo kono kala kay to on waɗire ichara kala noon hollire komi jahowo holli kam mataw ko min wonnoramo jaɓani fittandu jaɓani terɗe ɗe haydara e mum jaɓani kono noon la budda jaaɓe saabu kullu nafsin zaiqatul mawti hakada duniya hay hajju am rawande no kalanmomi nde kalanmomi kone heddi ko heewi o wi kam inchallahu rabbi mami jaabomo no garimi o wi kam ko joni poɗɗa hajjode ya kaccoya o haltanimi kadi kadi ka ma hajjoy kadi te oto o wi kam saɗa yaha kadi yaade e joom suudu ma kadi sa yeehi wat hajju naggam umru kacca mbimomi noon mbiɗa huuli yaade tan mbiɗa accuma o wi ma ya inchallah tawtat kam ɗo ma tawtam ɗo ɗum gueɗe ɗiɗo waɗi ɗum opération goto mi jooɗimo kulmi mbimi docteur o natta jamma o findini mo wimi an holko kulta ndene min goni tunisi mbimomi mawɗon oppirtako o wimami nat bolog mi tawtuma ɗo inchallah pinmi mbimi docteur yo waɗ accord ko yo oppiro ko yimɓe allah kono noon en mbiyata tan karamatuji enen en ganda ɗum ganduɗen ko haadde e bindol ko ɗum o jangguini en ceerno ahmad kala gandu ɗum o haɗata tan koye bindol ko haqqille wawi jaggude ko ko ɗum o rokkanma ko wawa jaggude ko gaccida ɗum joomi men ɗum ko ceerno hamidou yaro ɓanen gandi ɗum gandi no neɗɗo eltirte no neɗɗo andinirte no neɗɗo faminirte ha faama tinno tinnoɗen tan enen fof no nela sallah sallam wino la tahasadu wala tabagadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ihwanan almuslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yahzuluhu wala yahqiruhu non non ko ɗum addi ɗo ceernajo o ha jiyen zati o ceeɗoɗen zati o inna lillahi ibadan man nadara ilayhim nadaratan saida saadatan la yashqa badaha abadan wona yimɓe sa huccite mumen pouf awanta malkiseede hayla yomi dine en calmini dalifornaaɓe fof mbeɗa yaafno ko juutnimi ko ceerno oumar jooɓi ko enen ndenndi jonde nde min ngari ko jaɓɓaaɗe moƴƴo o tedduɗo o ceernaajo o ko ɗum addi min kono min ngala ɗo konngol salamu aleykum mbeɗa yaafno noon e konnguɗi ɗi mbeɗa yaafno ceerno kanko foti ƴettude toon konngol sono haalee kono min ko duwondirde e yimɓe ɓe tene famminde ceerno habaru e nomin ngoniri ni inchallah salamu aleykum wa rahmatullah honorable nena mowi noyi ñeppdilen jiyara mu ne muy nuyu suñu sëriñ gi nga xam ne gii nii mooy suñu gante ci takkusaan gii nii teew ci jotaay gi mu ne ñuy am mbégte ci gis sëriñ bi fii ci Dalifort foog na ni bii mooy ñaari yoon li sëriñ bi teew fii ci Dalifort defal ñu takkusaan gu mel mu ne moo ngi nuyu délégué de quartier yi teew fii yépp ak imaam yi bàyyiwul kenn mu ne mu teew ci bis gi nga xam ne gii nii moom ku fi war a teew la mu ne ndaxam ci toogaay rek ñi fi nekk ñépp ay mbokkam lañu ñi bokk dëkk Dalifor mu ne kon tey bu Thierno Omar Diop bu ko woowee invité ko ci takkusaan gu mel nii kon nag moom wareefam mooy ñëw wuy si Thierno Omar Diop teew ci takkusaan gi mu ne mu am ci mbégte lool mu ne muy wax Thierno Hamidou Yoroban na nga ñaanal dëkk bi ñaanal Dalifort yépp mune nawet gi ñi nekk nii mu doon nawet jàmm ak salaam mu ne nawet gi mu doon nawet gu ànd xéewal gu yaatu yàlla sàmm ñu sàmmal ñu njaboot gi mu ne loolu rek la amoon ci kàddu moo ngi nuyu suñu yaay booy fi teew yep jigéen yi yépp bàyyiwul kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum caggal yettude allah julde rasulu sallllahu alihi wasallam en puɗɗorima inde guenotoɗo townuɗo kalko towi kisɗo mo kisal alaa gaga mum mo fittande tagore arjigue wone tamande mum baɗowa laato en juule mouhamadou makko mouhamadou abdallah wodi timmoɗo anda baɓe koɗɗo no laaɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo guila e hunde wodani kalko woodi wodiri ɗum saabu mum gam nemorade ɗum bandiraɓe julɓe on calminama mbeɗa yasno noon ceerno e suddi konngol ɓe salmini hilfaaɓe dalifor wonɓe ɗo ɓe gilay maire aboly e les délégué de quartier les chef coutumier mi rewni salminaago ngo e ceerno oumar diop ceerno oumar diop a jaarama noon gueɗe ɗiɗi e tati na wone aduna wone aduna tan ko jikke e jikku e dalilu dalilu aduna ko jikki laakar ko jikpi sabu sondu woni no dow lekki ɓe mbi sondu tello yumma maayi sondu sali ɓe mbi sondu tello bamma maayi sondu sali ɓe mbi sondu tello jikke ma boni sondu saamel wi aduna ko jikki laakar ko jikki a jarama e jikki gaddandamen o dalilu neɗɗo gurda yimɓeɓe daña haqqillantagal gurda yimɓe allah rokkuma ngal haqqillantagal neɗɗago ngu allah rokkuma ɗum dalilu mo neɗɗo dañatonoon ɓurɗo giƴumen sa darima bibbe bama en ndewa ma ko kosam endu yumum neddo e duhol bamum neddo seydi ɓan allah rokkimo ɗum ina tafno ka ceerno aɗa haccito salatul fatiha aɗa ñabda e kenno e ala aɗa salatul e nabi alannabi aɗana wiide ko cerno tiiɗani tidi ñagade allah jabo an sa ñaguima allah na sabu saabu muñuɗa ke cheikh oumar tani muñi ke bashir cheikh oumar an muñda e cerno bashir mutaga cheikh oumar gonda junggo nyammu mum sa naati dalifor ko dalifor dali fartanke mi naati dalifor duuɓi sappo e ɗiɗi mi suutani ɗo micro kalmi laabi ɗiɗi o watti laabi ɗiɗi ko darimi e dental e dalifor mi haala min mbeɗe andi wila e ma mbeɗa andi moƴƴere ma mbeɗa andi teddugal ma mbeɗa andi wondema juulɗo e wondema kadi kilifa hakkude ma e bande hen e jogade e mesalal aɗa ñota hakkude julɓe ɗum allah rokkuma ɗum ceerno mamadtin mi salminima somi tawima e dental so haqqille diwano mbiyatmba bisimilla mi bismuma saabu ko woni ko hakkudam min kam mi e ɓi mawɗo wonko rewi hakkudam jinnaɗo makko e jinnaɗam wonko rewi hakkudema kamɓe kadi e jinnaɗam kadi mi tawimo e dental mimo seydi tine mi wima bisimilla ceerno dali fornaɓe ne poti yettude allah noon e oɗo fartange neɓe dañi e ma wona nokku foof jaɓɓata koyñal ma wona nokku fo kadi jahata wona nokku fof ɗo noddaɗa jaaha heewiti temedere neɗɗo noddi neɗɗo a délégat a fawata noon koyngal ma kono sa fawi ɗo koyngal ma ko yidde nan ɗo wonko mawɓe noon liggiɗo ko ko mawɓe liggi ko woni hen yaaɓe woni hen ronkiɓɓe allah addi lomto ko an ɗum ko yettude allah hakkundema e cheikh oumar ene tiiɗi ko taniraɓe ma jatiraɓe ma e cheikh oumar a yettiɗo jettuɗa ɗo saabu windiyanke goto tubako o winde cheikh oumar Oui, voilà Cheikh Omar Oui, Cheikh il est érudit, il est maître coranique. Oui, Cheikh Omar, il est le prince du savoir, il est adepte de la sunna, il est doublé de soufi de mystique, il est l'illustre propagateur de la tariqa tijaria, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Il est djihadiste et stratège. Il a eu l'autorisation de déclencher la guerre sainte. le Kaurane Silemeji, en Kaurane djihadiste, den kay dum do min kawri oɗo fattingeji min kawri min baye halde nyalaade maade min baye halde seydi ɓaɗo sa haali allah binde si ji yalla nangu bo nyaani si jawji yalla jay borom yalla nena seydi ɓan dalifor wima bisimilla wi ma bismillah. mi salmini banam debbo mayram buri kumba anta mi salmini rewɓeɓe kambe kala wonbe do ɓe on calminama on jurama mu ne ñoo lay naan dalal jamm bismillah ci for mu ne ni nga bëggee Dalifort Dalifort kat noonu lañ la bëggee mu ne ñoo ngi sant yàlla nag muy sant moom sëriñam mu ne sëriñam na Ahmadou Salihu Mbaye mu ne lépp lu dee ci rëbb rek jaawngal moo ko defu na naat moo ko yenu <laughs> masha mu ne lépp lu fi lu mu fi def mu ne ak lu fi defar mu ne ci pexe mu ne mballa ci xel mu ne mballa ci xam-xam mu ne xam-xam bi soriwul mu ne waaye am na lu ko yàlla dénk ci xel mu ne ñëw diggante jullit ak jullit mu ne bu yeewoo ci suba mu ne ba jant soow mu ne ci soxla jullit yi rek lay dox mu ne sëñ bi moo ko jàngal loolu moo ko digal loolu da ko ne ragalal yàlla nga jokk mbokk mu ne mbokk dañ koy jokk mu ne na Ahmad Saliou ne ko mu ne fépp foo munta gis ku baax mu ne na nga jokkoog moom loolu moo tax muy def lu mel nii muy def lepp lu fi def rek te ci mbax mu ne ci yalla la baye ko ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Cheikh na Tidiane ak Cheikh Omar Foutiou ak mboolem khalifa dine yi eh, ak Thierno ahmad sahlim bay ñongi sante yalla diko di ko Umar Diop moo ngi sante yalla di sante Thierno ahmad sahlim bay moo ngi sant yàlla di sant Ceerno Ahmad Salim Mbaye mu ne ndaxam da koy ndamoo da koy ndamoo da koy tiitaroo mu ne séentu na ko mu ne gis na ko mu ne xam na ko tamit xam na ko tamit eh, mu ne Ceerno Ilman Ahmadou Diallo Ceerno Ahmadou Salim Mbaye eh, mu ne ak Ceerno Hamidou Yoroban mune ñom ñoom ñoo sos li mune mom talibé la seen bir mune ne seen taalibe la seen seen jam la seen jam la bu deggu mune te yalla xamna na ñom ñoom xam nañu loolu mu ne ne lu melni mune li lu la ci liggey cierna hamid yarban Euh, usine euh, euh, mu ne énergie six mille volt on heƴaani mu ne boobu xejul ci cent vingt volt six mille volt mille volt huɓɓata mu ne lu taal ay usine la mu ne suuf lay taal cent vingt volt mu ne loolu benn lamp lay taal mu ne bu tàngee rek mu exploser mu ne mu def lëndëm mu ne six mille volts mooy Ceerno Hamid Yoroban mu ne li tax mu wax loolu mu ne Ceerno Yoro fépp fu mu teew mu ne ñi gàttandi ko te yàlla tax ñi gis ko te yàlla tax ñi teral ko te yàlla tax mu ne wallahi fii ci kanam rek la jëm su booba mu ne boo nekkee moom te yàlla tax nga teral ko te yàlla tax nga màggal ko te yàlla tax mu ne yàlla dina def lu mel noonu ci yow mu ne mu ne doo dellu ginnaaw abada mun kon nag mbokk yi waa Dalifort mu ne jigéen góor ndaw mu ne ak mag ñi ci mbir mi yëpp taxawoo ko mu ne Vieux Tarawore Mamadou Ndiaye eh ñoom eh mu ne bari nañu yal na leen yal yalla yàlla sa yal na yàlla sotti ci ñoom barke mu ne yal nañ yàlla may ñu yàgg teewe lu mel nii mu ne ñoo ngi jaajëfal suñu borom di leen jaajëfal mu ne moom mii mu ne bu wootewee mu ne ñu wuyu ko mu ne xam na moom la mu ne ki ñu wuyu mooy Ceerno Mbaay Ilmaan Ahmadou Diallo Ceerno Hamid Yoroban mu ne moom wuyu wuñ ko de ñii la ñu wuy si ñii ñoo ñii la teral mu ne yàlla na guddal seeni fan mu ne yàlla na yàlla yàlla na leen yàlla mujj bu rafet assalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alladi anaara quluba ahli saada bi nuuri lhidaya wa dahara afidata alsadiqina bi karimi lwilaya wassalatu wassalamu ala sayidi salihin wa nibrasi lmuttaqin wa khatimi lanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ورضي الله عن قطب الرباني والغوث السمداني أبي العباس أحمد التجاني الشريف الحسني وعن خليفته ووارث سره المجاهد الكبير والولي الصهير الشيخ الحاج عمر بن السيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وعنا بهم آمين إخواني في العقيدة uhayyikum bi tahiyati l islam wa aqul lakum kulle am wa antum bi hayr bandiraɓe julɓi bandiraɓe dalifor mi salmini on salminago l' islam salminago ngo hersata calminɗe gon ma salminago so wiide kisal yurmede barke yo wone men bandiraɓe julɓe caggar rokkude en farilla men futuru caggal almami men gando samba diag yo allah jaɓani en bandiraɓe délifort mi salmini alma meɓe men mi salmini notable uji ɗi e ɗemgal ceerne men ceerne yaraɓan min calmini chef de quartier min calmini maire wuro ngoo min calmini honorable député hono sohnajo moƴƴo oyo awañan mi calmini almuɓeɓe foof minen juuro ceerno wi rawane faade hikka kalako yaltiɗo aduna yo allah yurmo yaafo kala ko jibina yo allah waɗa hen barke ñalawma hande noon ko ñalawma dimanche 22 lewru wiitede juillet lan 2024 20 28 juillet 28 juillet l'an 2024 que a dit e le lewru wiiten ɗum harram lewru ɓaleeɓe nawgas a a dit don. ferga rasulullah ne yaare duuɓi takkusan rasulullahi noon takkusan hande o enen noddi ɗo karimun min karim min karim seydi yarab seydi hamidou yaraban tedduɗo ɓi tedduɗo ɓi tedduɗo so wiyama ceerno hamidou wiye kuña kaari mi ceerno hamidou mbitamba ko uh, uh, mboolo biran sa tawi sa ari toon ma tamba toon as aska makko nan ɗon famille makko nan ɗon so a yawti dondu tawa toon kan hanɓe ɓe ko koreji makka so ari jowol yowi looɗe ɓe mbiyata ɗum jowol juma gotanene nder jowol ɗon woni ɗon ko galle ba makka tani ko ceerno jibi ɗon wonno mbo ceerno mbo cheikh omarul fouti wino pade omon ara won yimɓe gabbo toon mais kanko fada jibi jibi ɓan ko on ari ɗo hannde on jaarama noon e jaɓɓongal mon on jaɓɓima noon jaɓɓotoɗo de suusɗo jaɓɓade hoɓɓe on jaɓɓima salatul fati lima ohliga on jaɓɓima nasirul haq bil haq on jaɓɓima jaɓɓotoɗo deftere allah nde on gondinima gondintoɗo hoɓɓe mon dusmo kadi dusannoɗo hoɓɓe kadi on jarama mi salmini ummahatul muminin en wona sohnaɓe ɓe ɗo bandiraɓe julɓi takkusan men hannde ko takkusan rasulullahi mouhammad ibnu abdoullahi ibnu abdoumoutalib hasim ibnu abdou manaf ousay kilab mourata kab louway ghali fihre malik nadar kinanata husaymata mudrikata ilias mudar nisar ma dada nan aɗanne poti han ah? ko limtumi koɗo yimɓe ne poti nawgas e naye ko non di wala ko di e ɗiɗo nawgas e ɗiɗi eyyi cerna cerna cerna cerna ceerno yereban o wi ummade muhammad ha adanan ko nawgas e ɗiɗo mbimi ha o wi woni habib windo habib rek habib ko 100 100 manda ko 22 sa calculi Habib ko nawgas e ɗiɗi mbimi a ko dum won don o wi ko rasulullah tan won don rasulullah tan woni allah Bimihah, ha oyi wad habibu bada habibu bada habibu ay o oyi ko rokkatma bimi 66 woni allahu wala, non bindami de ko kawis woni wad allah allahu mi allahu wad habibu mi habibu oyi ko woni bimi a ɗum ɗo de oyi dum woni halimu ko allah tan wondo rasulullah kala ɗo jiiɗama ren kanke allah gondi hande nonon jabbima takusar Rasulullah. ko ni rasulullah jaɓɓirano madina no joɗirɗen ɗo foof no ɓoyri foof baraji men ɓurata hewdeɗe man jalasa endal alim sa'atayni aw akala mahu luqmatayni aw haɗa aw masa mahu hutwatayni aɗahullahu jannatayni kullu jannatin mislu duniya marratayni sadaga man naɗaga rasulullah kala ko haali ko noon wori kala joɗiɗe yeesa ganda heure uji ɗiɗi walla ñamduɗa e makko longue ɗiɗi walla o ñaami ñamɗa hen longue ɗiɗi walla o are yaade dusɗamba hayso taɓanɗe ɗiɗi allah yima mi rokke aljannaji ɗiɗi aljanna fo ɓuuri hewde doole ɓuuri mawnude aduna aduna laaɓi ɗiɗi ɗum waɗi mbimi kalno ɓoruɗen on kuccite makko baraji men ne ɓeydo hewde tan ko ni rasulullah jaɓɓirano e madina ko altini wonno saaɓen naati e altini nani ko takkusan rasulullah wonno joni en gone e jamma jibinede rasulullahi ɗo ɗo e dalifor wuro noon suusgo waliyaɓe allah wuro ɓoyga jaɓɓade moƴƴuɓi onon kala moƴƴo yaɓɓiɗo wuro suusgo mawlidin nabi sabmi waɗi ɗo jammaji mawlidin nabi <laughs> mataw mbaɗa toon nde mawlude meɗa ranno ɗo 94 nden kawrumi e ceernajo oɗo ceerno ibrahima diaw oumar jooɓen ɓeɗo kala mbo yettani sababu yettata allah kala ko dañƴen ɗo hannde e baraji umar oɗo ittanta hen e wondiɓe makko e ɓo renduno miijo ɓe umar job attahaddus bi nimatillahi chucrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuri lqalil la yashkuri lkasir wa man la yashkuri nnasa la yashkuri llah aljama'atu noon rahma wol furqa azab yewtude nema mba allah waɗanma ɗum ke baraji gaɗan aɗan aɗan aɗan e mbaɗa kono jooɗa aɗan wirdu ni aɗa jogui baraji birduɗo ɗum ɗo ko nemo mba allah waɗan en hannde allah waɗan ma nemo mba sa haaldi ene wayna ubbi sa ubbi nema tan a wonti kefer woman la yaskuril kalil la yaskuril kasir baɗnaɗo seeɗa yettani hayso waɗnama ha heewi yettata mo yettani neɗɗo hayso allah waɗini moƴƴata yettata ɗum o wi noon aljama'a nelaaɗo wii dental e mbimo ewi rahmatun ay ɗum ɗo ko dental ko yurmeendi dental noon ko dental ɓerɗe wonaa dental niroole yereede <laughs> ala ko dental ɓerɗe ceerno oo ɗo noon ko ceerno haamidu 85 faade jooni ko ɗum tan ngan ɗum inde ni tawrumoomo min allah wi nelaaɗo wi cheikh tijani wi cheikh oumarul fouti wi ceerno bachir wi muntaga ɗaha cheikh ngol fouti nasarahu llahu wa ayyadahu ceerno bachir a ah, jolfuɓɓe jolfuɓɓe de ko oɗo ceernajo foti haalande ɓe ɗum eyi hmm. eh, bisimilla wadde gonnomi ke langue langue international o tan <laughs> wadde hen wadde hen langue national a ah? ndeysa hmm. hmm. <laughs> ɗum noon on jarama ceerno min tawi ɗum tan ke sifaji ɗiɗo salmindi ñammindi wiide yimɓe yo juul jamma yo jaggu kursaji ɗum rasulullah adino haaldinano natata madina ifsu salama wa aɗimu ɗaama wa salli billeyli wonnasu niyam e mbimo eyyi oy tadhulul jannata bisalam gorko arebe o rasulullahi calmine su salam ñammine si hiiri goote mon fof yo wujjude hay so darɗe ɗiɗi hay so darɗe ɗiɗi jamma wujjudi jamma woni wujjude aɗa juulo taw hay goto tinani so yimɓe leliima ummirɗa seesa ƴetta satalla mbaɗa hen ndiyam juula hay so darɗe ɗiɗi ko noon ousmane waɗatno ousmane ibnu affane allah wi a ɗum nde ne weeli mi tata jaafa junubuhum anil madaji yaduna rabbahum hawfan wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun ndeke fala talamu nafsum mimma ma ukhfi lahu min qurrati ainin jasan bima afa man kana muminan mbiɗa kaman kana fasiga allah wi a la yastawuno son jabaki mi jaabo la yastawuno balɗo gadde ɗemgal mum ha weeti e balɗo julde ne huccidi funnage ne jaggue nasirul haqqe bila haqqe ɓiɗaɓe ko gotum ala ɓe gona gotum ceerno noon ko ɗum min gandiri ɗum nasiril haqqi bil haqqi hay sa jaggani wirdo so waktu widar nde e wertama o wi an mo jaggano ɓatta rek beele nuru salatul fati o naate e ma bel ma jaggo wirdo ɗum koko ɓooyi kalan mon koɗo hande ko ñalawma weltare tan teeɗa gonɗen ɗo joni malaika ji yurmede nden taari en enen foof eyi kala kaalo e jamma hanka sinage muti rasulullah ina haale malaika ji tellota ɗin ko ɗum tan nafata malaikaji tello ɗum yurmede ne tello so qur'an ene jangge malaikaji yurmede tellidime qur'ana ñande qur'ana jippoto lawhul mahfus isa kanatil malaikatu tatanazzalu fi leylati nusuli l qur'an wa tatanazzalu inde tilawati l qur'an afala fi zicra man nazala alayhi l qur'an afala tatanazzalu l ala unasin ijtamau yahtafilu biman nazala alayhi l qur'an isa kana alqouranu mawduhu sayidina mouhammadou sallllahu alih wa sallam haɗi haɗi haɗata ha tawde qouran a jippima malaikaji wuri mene jippidima hen qouran sene silke gasi ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi malaika ne jippo ka haɗi malaikaji jippo e jamma jibinede rasulllahi haɗi malaikaji jippo e julɓe woppuɓe haajuji men cakke lestantaji ene teddini yimɓe yiɗɓe rasulullahi hande noon ko ñalawma ziyara man zara aliman faka annama zarani rasulullahi kala juuriɗo ganda ene wayna juurimamo min han min nanani langue national e bisimilla di leen nuyu di leen baalu ax même su fekkee ni tamit olof bi dana xaw a xajam di leen ziyaara si bés bu tedd bi di dimanche si guddi altine ñu nekkoon si tàkkusaan rasulullah ba guddi gi ñëw li ko waral li ñu yëngal lu yëngu rek li ko yëngal ko ëpp doole li ñu yëngal tey nag mooy suñu sàng bu tedd bi di Thierno Yaraban du loxu ndey joor Thierno Bachiru di amin li kulli ummatin amin wa aminu hazil umma abu ubaydat ibnul jarrah noon rasulullah wino kala leñol kala zamanu waɗa koolaɗo mum koolaɗomi noon hannde min ko gorko biyeteɗo abu ubaydata kola de cerna basiru hande e ender Senegal do do gonden tawdo ko ndido leedi ke cerna men chairna yarabal kala gollal mangal bepp liggéey bi nga xamne buy reey la si xam la kay def lepp lu may wax mu xamne lilu lu ki la cerna cerna yaraban mi la kay lay woo way lan moy yengal mbir mi nak moy Umar Job Al Farouq ñame dégg lol bugul lol cerna cerna yaraban ku ñame dégg la ki di nuyu sang yi nak di nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di balu ak ñëpp tamit mani ku tok si kanamu borom xam-xam même bu dé ñaari heure wala nga lek ak mom and nga lek tib si ñaari tib rek ci lekam wala muy dem nga gungé ko ubbi otam mu dugg nga fermé auto bi yalla nee dana la may lu reuy ñaari aljanna aljanna bu nek mo gina mag adina ñaari enen fof noon renndinnen ɗo ko yidde rasulullahi almar'u maman ahabba anta maman ahbabta rasulullahi wiyanno noon yiɗɓe mum ɓe hassan ibnu sabiten ukkasat ibnu hassani nen en mbi minen jiɗma rasulullahi o wi kala giɗo wondade ke giɗo mum asharul lawni gorko joɗɗo renndino gorko joɗɗo woni rasulullahi jom takkusanoo azharul lawni wajo goto ne sifo mbo ada ajun anjalun ashkalun ahdabul isfar ablasun azaj akna afladu mudawirul wajji wasiul jabin kasullihiya tamla usadruhu azimu sadri azimul mankabayni dahmul isam wal udadayni ibnul ud wal udadayni kanko oɗo rasulullahi rijulus sari isaftarra dahi kan iftarra an misli sanal barqi wa an misli habbil gamam wa ida takallama ri yahruju min bayni yadayhi o woni rasulullahi ay on ñemtinta oɗo noon ko waɗi ko on ñemtintuma seeda wona deeje tan neɗɗen galifort wona noon de ni ɗo moƴan de on jarama mi salminima seydi ñang komin jiima ko e yeeso ceerno minen belti hen oɗo sept heures zéro minute Podor dans les années soixante huit minen ngoni sukaaɓe ba makko huɓɓata lampaji Podor taal oyna andi kalanmi ko mbusñang ba makko wiyete yum makko ko sohnajo moƴƴo miñum nikel ñang walla mawnum mawnum nikel eh, minen fof minen gonduno Podor ba makko ko khalifa minen gandendir somi ari mi tawi dental bangal ni oɗo ceerno mamadou ahmadou mbayi hafis mo hafiz denɗo qur'ana dennowo qur'ana adib ganda nehiɗo jankidiɗo kewɗo gandal noon to olof yiɗo wax ken du ko jamnani xale bi du xale nag xale la si zahir way si batin ku magla yalla yàlla xam na ko man xam ko kon ñu ngi lay ziara di ñaan waajur bi tamit yàll na xippi aljanna bandiraa bi juul bi rasulullahi huccitiine soxnaa ɓe ñade altini hono hanki subaka jàngu ni ñande ɓe njaɓɓotooma ɗoon o huccitee madina ɓe onon njiɗimi de e mbi minen jiɗmaa o wireeɓe onon njiɗimi de e mbi wallahi rasulullahi minen jiɗmaa o wiɓi wallahi inna qalbi yuhibbu kunno mi woondi ɓernam nene yiɗireeɓe madina mi wondi ɓernde ceerne men ceerne yana ɓanno huccite mon ene yiɗi on no rasulullah yiɗirno rewɓe madina on mbi o wi on mba mba oɗo noon ko mbawamba rasulullah wino madine naɓe ñaɗeme jaɓɓotomba kikiɗo jaɓɓiɗon ɗo ko l'islam hayso wona gonnoɗo to jaɓɓanoɗo to jaɓɓaɗo kono ko jaɓɓal ngal ɗon yahata oɗo on jarama yo allah lomtin sor a jarama yo allah lomtin bandiraɓe julbi onon rewbe kadi ko onon onon dusno neladal, ko onon gadi tufande nelaɗo allah nukkani wiye qadid ndo e makke e madina o yidi kosam o ini kosam debbo goto do jippino en wiye ummu mabada ay sonne ko waaɓe mimi gonno ɗo e jagganami ummu mabada almuɓe ɓe alaji mali wi sa yiiɗi andude debbo jaɓɓinoɗo rasulullahi o wonde mum ha hirdi yeehi lawol mu acci ɗon debbo e mbimi o wiite ko ummu mabada sal ummu mabada mi firongol ɗo jimol mi firongol ɗo jimol ceerno sal ummu mabada sa anda rasulullahi namde debbo biteɗo ummu mabada min gandama o wi zata sati joom mbewo baya mbewo noon koko tira nde wawa ummade rasulullah yiiɗi kosam o haalni debba arabe o rewɓe arabeɓe ko hersoɓe omo yiiɗi teddinde koɗo ala ko teddini koɗo debbo o min ko mbewa baɗo tan joguimi te mbewa sellani nelaɗo wi yamram tan min mi yamiram sa yamri kam tan mi ɓiru mbewa ba o wimi yamrima o hucce mbewa mbewa ummi daari u ɗaratono ko wallahi o ƴetti junggo makko aɓa ngo faye jungo faye mbewa mbewa mana kosam wone hewde e yesere nde leeɓi mayɗi ɗi gone samde leeɓi gone fuddi hen mbewa so a annda rasulullah namno on debbo hina adda fatir rasul ñande rasulullah hoɗotombo bi amil jadbi wal isam hitande yooro hitande kokke toɓani ilani kono ñande hene ɓe jari ɗon kosam on debbo wiite ummu mabada on debbo noon jibini rewɓe jaɓɓotoɓe mana dendagal moƴƴuɓi ha zaman o gasa waɓina rasulullahi e cheikh tidiane ma wo dariɓe fela mumen ha aduna gasa ma waɗa yimɓe tan ko dariɓe katanteɓe ala ko welat ɗumen sona teddinde moƴƴuɓi e jaɓɓade ɗumen onon noon ko hen jeyɗon minen ñaago allah tabaraka wa taala kikiɗa hande o woto won sakket kikiɗaji men minen ñaago allah tabaraka wa taala e ɗemgal ceerna minen mbi toɓo ngo ɗo aro yo allah waɗ ɗum toɓo barkinga hayso ndiyam ɗam hewani kam waɗa barke e ilam ɗam waɗa barke wone maaje men e calli men e geejiji men liɗɗi men garta jiɗidiren noon saabi allah ceerno o ɗo yaha tan ke yiiɗi yo yimɓe gon gootum yo piɓodir jiɗidir saabi allah tawde woni enen lawƴe jeese menen senen calli go woto jejjiten lawƴude ɓerɗe ɗe kadi ɓerɗe ɗe kañumen cohla yo ɓerɗe ɗe lawƴe so tawi ɓerɗe lawƴamen juuli tan allah jaɓan en tan guuren gurdam moƴƴam sen maayi ma en maayde moƴƴere moƴƴuɓe pewndu en totto en allah ko moƴƴu allah ne jogui galle ne yaaji ne wiye aljanna ko galloo ko moƴƴu ma taw toon rasulullahi sarti diane e cheikh mourum fouti wona ɓen kay ko moƴƴuɓe wo fi zalika fal yatta nafis lil mutanafisun bandiraɓe julɓi e ɗemgal ceerne yamirore mum aɗa andi yaboyi yaboyi oɗo biteɗo yaboyi so wi dorƴa waɗa dorƴi tati walla nayyi aɗa ñamde goto fof wiya ko ittu dorƴil kono wona tan mbiyaɗa ƴettu dorƴi ɗe fof an goto eyyi wona hewde qi waɗi ɗa yaboye dorƴede ala goto fof yo jaggo dorƴe min mi ƴetti dorƴe ɗam min totta goɗɗo kadi ƴetta dorƴe mi allah jarama on jarama seydi moon mahamadoul mouhtar tin yen battunimo wuuri allahumma salli ala seydina mouhamadin wa sallim بوعد الجميع حرم الله ناره على كل من الحبيب له حسبه تعالى ألا إنه سال الأنام تعمل مدائعه حبا بفوز تغمدي أعشاقه إن تمو مدح أحمد تعالوا فعندي للنبي محمد مدائعه التي تر ceerno nee na gannaaw sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ngërëmu suñu borom bi subhanahu wa taala yal na ko yàlla def ci suñu sëriñ mawlana cheikhana ahmada tijaani sharif radiallahu taala anhu ak mbollem goru yàlla yi ak mbollem ñu bax ñi non yit lañuy ñaané ñaanee suñu borom bi subhanahu wa taala na nek ci suñu sëriñ مولانا cheikh الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه na يالا ديف ييت it مبولم mboolem yàlla it def ko ci mboolem ay soppeem yàlla nañu yàlla boole ci njaboot gi boole ñu ci soppe yi noonu it ñuy ñaan mawlaana subhanahu wa ta'ala suñu sëriñ suñu wayjur suñu xalifa ceerno mouhamad nil bachir muntaga taaha bu mawlaana cheikh alhaaji umar al fouti radiallahu taala anhum mi nga xam ne mooy xalifaam yal na ko yàlla yàggal ci suñu kanam te it mu ànd ak wér moom ak mboolem nawlem yi nga xam ne yàlla samp na leen ci këru diine yi Yalna na yàlla wërsëgal ñu ñu dégg seeni kàddu te it topp seeni ndigal yàlla may ñu it ci may ñu it seeni barke ceerno nee na bu loolu wéyee mbooloo mi yépp mu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ني جيتال سي نويو غي نك ستو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغا خامني نيغي سي بير مبولو مي نينا دي سي جيتال شريف محمود ميغا خامني دومم لا سوبم لا خريتام لا تيت سيرينم لا سي بنين وال بي ndax ceerno mii def na tarbiyu ci kanamu wayjur Cherif Mahmoud bii juróom-ñaari at nee na la tàmbalee 1970 ba 1977 nee na mu ngi sant yàlla mboolem lim fa sonnoon nee na mu ngi sant yàlla yàlla fay na ko coono googu mboolem it li ma fa doon wut mboolem lu yàlla jaaralul woon ci loxoom nee na yàlla dimbali na ma ci mbaaxam guddi gi ma bàyyeekoo ci loxo góor googu ci guddi googu yàlla may na ma mboolem loo xam ne jotuma ko woon ci sëriñ bi nee na nag may yi di doxee noonu rek macha allah. ba yàlla jotal ko ci loxo góor yàlla bi ñuy wax Ceerno Umar ngi juloon mooy ki ko njëkk defal ijaaza taqdim ci tariqa Cheikhana Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu yàlla nag di ma wommat di ma wommat di ma indi ba teg ma ci loxo Ceerno Mouhamed Nil Bachir mu nekk wayjur mu nekk sëriñ مصوب ميت تفعل غو خمني لولو تي أدنى جيب من ننكو سيدي يالا نجي نبولي لتنبالي 1983 جمانو جوجو كنبوون لا لولو كو يالا ورسغل دوغا وخمتير محمد البشير تيرنو نينا نك موم تير محمد البشير مو خيتل تيرنو بوبام تاف كو سي بوبام نينا بوبو باتاي سانت نيل نا سونو بوروم وتعالى دوما دم فن لودول سي كاو نديغلم دوما جيف لن ييت لودول سي كاو نديغلم تيد نيا نوما يالله تبارك وتعالى واخ لودول سي كاو نديغلم nee ndigal gi nga xamne mom lama won ak jëf ji nga xamne mom lama won ak wax ji nga xamne mom lama wax génnul yàlla nena yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nena na bu la yàlla bolé ak sëriñ bo xamne wax na la li yàlla wax واخلا يد لينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم واخ مدفل ليت لينا خمن موي اذن المطلق جامونو بيم لا كوي دفال بور مو دفال نيت اذن غوغو موي نديغال غوغو نيكول لو يوم موم تي جيمي بوبام نيبون لا لولو بامو بيند بن تيري mu daadi ci junju loolu ceerno ci jëmmi boppam ne ko maa la jox ndigal bindal ci téere bi ni maa la jox isnul mutlaq bi mu wax yeneen wax ca gannaawam loolu nag du lu ñuy wax ci mbooloo moo tax man damay ñaan yàlla des ci ndigal ci biir ndigal googu it ma ñaan yàlla yàlla def ma ab taalibe goo xam ne ab taalibeem gu mot lay doon ndax nekk taalibe yombut de yàlla na ñu yàlla def ay taalibe amiin yàlla na yàlla def ñu ay taalibe amiin ku yàlla def ab taalibe ba nga xam lan muy dëgg-dëgg ab taalibe di nga fekk ne nekk taalibe moo gën a neex nekk lu ne yal na yàlla def ñu ay taalibe amin neen gannaaw bi mu nuyoo surafaa yi mu ngi nuyu boo mboolem boroomi xam-xam yi mboolem imaam yi tamit ñi fi ñi nekk fii ci Dalifort ak ñu teew ak ñu teewul ceerno nee na ñépp maa ngi leen di nuyu ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taxawaay bi leen yàlla taxawloo ci wuutu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci néegu yàlla yi ceerno ne na mboolem allahu akbar bu ñu def ñoom ñi jiite ak ñi jiite yal na yàlla boole nangul ñoom ak mboolem boromi xam-xam yi fi nekk ñoom ñëpp ak mboolem mboolo mi yëpp góor ak jigéen mboolem suñuy allahumma li ñu ñaan suñu borom bi subhanahu wa loo xam ne topp na ndigal ci suñu boroom jokku na it mbokk yal na yàlla nangul ñu loolu amiin بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم موغي نويو استاذ علي يمباي ولا الامام علي يمباي مون لاي نويو دي لا زيار ليغا واخني صوب غا تيرن تيرو نينا مالا نديك صوب ناخ مالا نديك ديغ تي بوبو غيسوما موي تي راديو سيدي اف sa wax lu ko neex la ni ngay waxee it wax ji ta koy neex ndax mboolem li ngay wax danga koy wax ci xarañte nee na mboolem mboolo boo teew mun nga fa jël kàddu waxtaan ba ñu fa teew ñépp kontaan te kenn du mer loolu moo tax ñun yàgg nañ la bége lool nee na Thierno Samba Diako ñoom Thierno Jigi ak mboolem ñi fi teew ñépp nee na ku lim juum walla ku lim guddal nee na ñii ma tudd daal mboolem kii ma fi war a tudd tuddaale naa la ci biir ñii ma tudd léegi ndax ñun suñu diggante yàlla dogal na démb la laata tey di ñëw nee na Thierno sa taxawaay rafet na. sa jëf yit rafet na ya nga xam na nga xam ni Ceerno Umar Umar Diop mii nëbbalu la dara fu mu dem yit dalay tudd mboolem looy def it daf koy waxtaane kon nag Ceerno Ousmane yàlla yàlla fay la mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom ak Ceerno Umar ñoo ànd ci liggéey bii Ceerno nee yàlla gis na seen liggéey Yalla du ninal jëf way rafetal ya neena suñu mbokk matlabul fawzaini ak imam Touré mi jëlon kaddu sank neena ñun ñepp benn jëm lañu ku jël tariqa nga ne man ma ngi bokku ci kojub waye man kër gi momo day ci la aju nee na loolu du ci yow ca yàlla la ndax yàllaa dogal na nga dem ci bërëb bu la neexee fa ngay dem bu la neexul it fa ngay dem fi nga dem wërsëg nga ci kooku kii la yàlla boole it moom tamit wërsëg nga wërsëg la ci moom keneen it ne ma nit tamit kër gii mooma day falaay aju keneen ki tamit ne man tamit feneen la am ku taxaw ne man keur yoy yeb sama yoon newul ci ben keur ci yoy man yalla rek doyna ma way bo xole fiñu jëm ñom ñepp bokku jëm ci ben beurep ndax ñom ñepp ben mbir lañuy sakku moy mooy suñu borom bi subhanahu wa taala ngay sakku ngërëm sa borom Ki di sakku ngërëmu sa borom كيدي دي ساكو سنغرم بروم نينا خمغا كي لغنا جيك ترفت موي نيو بوك كوندي اك لولا لول رك موي لي نيو وور ادونا بي نينا تاي نك الاسلام لول لا سوخلا الاسلام لي مو واخ لول لا سوخلا te kenn ku ne yit loola waroon nekk sa taxawaay nga wax wax ji nga jëf jëf ji nga dox dox nee na boobu nag bi nga waxee ne jullit nga nee na nag nekk jullit gi nag daal di feeñ ci yow ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laajoon nañ ko kan mooy jullit nee na jullit daal mooy koo xam ne jullit yépp mucc nañu ci moom ci làmmiñam ci loxoom boo bëggee gàttal rek julit dal, moy ku bax dal koo koy jullit boo baaxee nga dadi di baax tamit sa digënt ak say dëkkandoo yow yaay julit ku deful lu mel nii yow xamago ba tey sa diiné bu la neex nga jang téré yépp comme nitu jamm ci bir diiné l'islam gi nee ba yow xamago sa diiné yal na yàlla may ñu dégg loolu mu may ñu it ñu xam ko mu may ñu yit ñu jëfe ko nee na wax ji wax nañu wax yu bari nee na ba ñu tàmbalee wax ba tey kenn du wax ni man de dégguma loo xam ne mun na defar sama diine rajo yaa ngi wax télévision yaa ngi wax imam yaa wax conférence yi ñu ngi wax ziyaare yaa am magal amna na ñëpp dañuy wax da ay julit lañu bu dee ay julit lañu nak nañu jàppante واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا واي واي ولا تفرقوا hay galle gooto amul benn kër hay galle même benn kër nee na même benn kër yàlla du dogal ñëpp fanaan ci benn néeg jom galle woni yiɗaa ɗum nee na borom kër gi sax moo dul nangu loolu jom borom kër eh, ak njabootam yëpp ñu baa ñu fanaan benn néeg nee xam nga loolu des na li mu bëgg mooy daal kër gi daal di jur ay yeneen kër ñii dëkk fële sanc fële ñii dëkk asleem ñii dëkk goltappi ñii dëkk dam waaye nag kenn ku ne fu mu mun a dem bu mu fàtte nee na bu mu fàtte këru baay bi nag mooy cosaan bi nee na kër baay nag mooy lislaam foo dem ci kër suufi yuy ak lu dul loolu demal nga jëf fa waaye nag bul fàtte al muslimu axul muslimi comme ni suñu doom suñu soppe suñu xarit nga xam ne fala la jeexalee waxam nee na jullit mbokkam mooy jullit comme moom te yàlla nee na mboolem jullit yi ñoo bokk kon nag nañu yéwénal seen diggante gi ñu bëri dañuy wax mboolem li ñëwoon ci lislaam bisu arafa nee na ci aj yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy gu mujj te it mu doon tàggatoo bi aaya bi wàccee ci moom mu ni leen al yawma akmaltu lakum diinakum nee na dañoo wax ni bis boobu la lépp mot waaye am na li mu wax nee na xam loolu tamit ci la bokk dafa wax ni bépp jullit mbokkam jullit dafa araam ci moom deretam alalam ak de ak ak ak deret sa mbokk jullit yow sa lislaam nee na déggagoo sa lislaam ba tey wala dégg sa lislaam waaye dëggaloo li yonti muhammad sallallahu alayhi wa wa maaluhu ak alalam nga daal di salfaañe yàq alul sa alalu sa mbokk jullit nee na loolu tamit melokaan yooyu bëri na nee na kuy def loolu nee na na nga xam ne mooy nga yoonu dëgg nee na nag li gën a nekk problème mooy li nga xam ne mooy na këtt na jonn tey mooy wa irduhu deru gor ñi ci réseaux sociaux yi tiktok yi facebook yi ak yu mel ñoom ñoom àlla ji whatsapp ñoom twitter ak yu dul yooyu nee na daal nga tooñ sa mbokk walla nga wax sa mbokk walla sax ñu wax ci keneen te it nga waroon suturaal kooku yow daal nga ne ah comme que daal yegg si na ci man nga koy wesaare ngay lancé ku ne koo amul woon numéro sax nga wut numéro ngir lan na jot ci audio bi walla ci vidéo bi walla ci leneen ak leneen walla nga tëju sa biir néeg yow ci sa jëmmi bopp xam nga ah, boo génnoon ci biti ah, nga wax sax ñaari doomu aadama ne ñu ñëw ñu déglu la kenn du la déglu du sa xam-xam du sa xel du sa jikko nga daal di tëju sa néeg nga nekk imam wala nga nekk sëriñ wala nga nekk technicien wala daal nga nekk nekk daal ci mboolem jumtuwaay lu mu mun a doon nga wax daal loo xam ak loo xamul nga daal koy wesaare nee na nga foog ne lii nga def yàlla du la ko laaj ëllëg ah da la koy laaj de. nee na Ceer Mouhamadou Mbaye li mu waxoon léegi illa man ata allaha bi qalbin salim ah il faut nga am jikko ju rafet de nga yore xol mu sell nga yore it yéene gu rafet ci say mbokk ne bu ko defee nag nga doog tabbi ci daairatul iman yent yàlla Muhammad nee na kenn ci yéen ngëmum du wér doo dugg ci daaira bi mukk lu dul nga bëggal sa mbokk jullit li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp ceer ceerno bari na li muy wax boo yéenee ñépp jàmm nee na donte ne ñëpp amuñu jàmm yow moom di nga am jàmm nee na misaal bi nee na bëgg nga kii mu am yére boo xam ne jamaa la waaye amul yére jaama waaye am na désinaire nee saa yoo ko gisee da ngay ndax li nga ko yéene woon ëpp na li nga xam ne moom nga gis muy solte yàlla jox ko loolu ne dangay ngay kontaan ci loolu waaye yéene woo ko sax patu dàll yàlla jox ko avion saa yu avion bi riire rek da ngay feebar aha kay la ilaha nee na da ngay mujj solo sa bopp rek nee na daal message bi mooy nañu fexe ñu fóot xol yi ceerno neena kenn ku ne am na ñett cër yi yàlla def ci yow cër yu set wit la bu nañu moytu ñu bañ ko tilimal ku ku ku ku dox dal ba tilimal ñett yoy neena bul bul wax ak kenn bul yedd kenn lu dul sa jëm bop neena sa teunk loxo bii dafa set neena na tax tax mo tax du sax kawar salamin kazalika lu set la du sax kawar momit neena sa deug way bi tamit neena du sax kawar neena na yi dañ daña lol neena bo gor gor lo sa su ne nga len di fóot di len laabal yow ci rek ngay nek waye bo len di tilimal nga des ti nee yag yàgg koy yek limuy firi bul wax lu baxul bul naan lu baaxul bul lekk lu baaxul saa yoo waxee lu baaxul wala nga lek lu baxul wala nga wax lu baxul in xamal ni tilimal nga sa bo ci saxé bo demul kasso rek neena da ngay febar wal iyaasu billah xolal ki tuxu ko xam da fay xëc di mukki ha ñi def ni neena don donte demul kasso yàgg-yàgg mu am tibir tibéru close nee na dënn bi léeg nga dégg <coughs> aha bu yàggee nee bëñ daal di wadd nee yàpp ala du lekk yàpp kay bu yàggee bët yi di xonk bu yàggee tànk yi yeel sew bu yàggee rek mu dee تيل بودي تي انام غوغو دا فخرو نانا كويتو خوكوني يعني خرو نانا دا كيبو كو خامي دا نغي ختي دي موكي دا جند اب جانغورو نانا كو جند جانغورو نك دي جند نانا كو جند دي نك دا خرو skey nee na kii dafa jël fetel ab fetel tiire boppam dee ci saasi wala jël buum takk baatam dee ci saasi wala jël paaka jam boppam dee ci saasi yow nag da nga jënd loo xam ne da lay rey étape par étape ba nga xëy jeex nee na koo xam ne dafay laal yamba wala yu aju yu mel noonu nee na koo kay dafa dee dox rek ah, xel dem na nee na kenn du am ci moom yaakaar gu rafet kenn du am ci moom kóolute te it lu mu romb butel bi sax su ko romb daf koy yóbbu la ilaha illa allah ceerno nee na loolu daal musiba la nañ ko moytu bu dee nit tamit li muy wax du noonu ba ñu ko moom du wax dëgg nee na day mujj daal nekkaat ku ñàkk fayda ci kanamu nit ñi ndax dañuy fu mu toog wax wala mu wax wax ji ñëw di ah du di wa ko wax e eh, wonaa du di wa ko wax gaccu kaari nee na loolu nag nañu moytu wax lu amul nee na loxo noonu it nee na nit daal loo moomul bu ko laal loo moomul bu ko loo moomul bu ko laal nee si imam wax na ko sànq nee na même sa koj aram nee na waroo ko jox loxo ndax moomoo ko yàlla doxal na ab baaraas sa digganteeg moom boo ko setalee moom loxo bi rek nee na di nga mujj suturlu laa waxuñu nag ngay tëb miir wala di dugal sa loxo ci poosu jàmbur di rocci loo xam ne defoo ko fa woon nee na boo ci muccee tey nee na ah fexeel nga yedd sa bopp arrêté boo arrêté wul. nee na sa yaram dana mokk walla nga dem kaso seetal loolu nee na loolu ci kan lay dellu lu dul yow mi ko def nee na sa tànk yit boo bëggee setal sa tànk fooy dem na fekk fu baax la koy àndal na fekk ku baax la nee na Thierno Mouhamed gis nga bi mu ñëwee ñi mu àndal ñun ñëpp kontaan nañu. ndax danañu gis ci ñoom moom cheikh mohammed ku baax la ñaan nak ak moom tamit ñu baax lañu ñun ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar yu rafet waaye am na koo xam ne bu ne woon tëll léeg-léeg lu ne donte ne waxuñu ah da ngay wax ne sama ma sama daal lii wala daal yow laa fa ka nee na léeg-léeg da ngay ragal wala balaa ñu ñuy indil fitna nee na li ko waral mooy seen melokaan.

lu ne mun nga ko fa am waaye boo leboo doo fay loo gis lu ne nga ne yow yaa ko war a moom ah, nee na benn kóolute amul ne bu dee da ngay commerce mun nga bu de waaye nag boo ñëwaatee nee na ah boo leboo tey trian boo ñëwaatee ëllëg doo jot kon nag Ceerno nee na ñu góorgóorlu it ci suñuy tànk ñuy dox di ànd ak ñu baax ñu dox it tamit dem fu baax ñuy dox yit ci lu baax lii bu dajee mooy doomu aadama nee na yii yëpp nag ñu ngi dépendre ci xolu doomu aadama bi ndax làmmiñ bi ak loxo yi ak tànk yi ay soldaar lañu seen général mooy xol bi nit nay rafet nay rafetal yéeneem nga yene ku ne jàmm yene yéenee ñëpp jàmm nga dal di noppalu ceerno neena dal limay mujjé ci wax ji neena dal delo suñu sëriñ ceer Mouhamad Salih moy njaal neena dafa ñew ngir delo suñu njaal ne aha nangu nañu lolu kay nee na ci njaal gi nga xam ne moom la ñu delloo naa ceer ceerno mi dem yow ci moom nga bokk di fanaan nekkak moom waaye ñun ñëpp ñoo ko bokk yow yaa ñu wuutu woon nekkal ñu ci moom ñu lay ñaanal yàlla mboolem li nga sonn ci moom yàlla na la ko yàlla fay waaye na nga yëg ne mboolem am di jàmmu no ay soppe ceerno ay taalibe ceerno nga wuutu ci ceerno ndax ceerno ñépp a ko sopp ndax jikkoom ak xam-xamam ak niteem ak diineem ak mbaaxam ak jokku mbokk ak wàcce boppam ak tabe gi nga xam ne moom la tabe te it lu muy def lu ne def koy def ngir jëmm yàlla ceerno nee na kon it ñun ñëpp ñu ngi lay delloo njaal ceer Muhammad boo ñëwee ci ñun ñëw nga boo ñëwul ci ñun tamit ñëw nga ndax li nga fa ne ñun nga fa nekkaloon te it li nga xam ne moom nga taxawee di jàngale ñun loolu dañ ciy fierté dañ ciy kontaan tey ceero nee na ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax yàlla may na la tey defal la lépp fekk nit yàlla mun na ko may defal ku lu ne fekk li ko yàlla may defal moom nit ki gisu ko bari na ñoo xam ne ay góor yàlla ñoo leen di jur wala boromi xam-xam jur leen waaye fekk loolu ñoom safu leen waaye fekk ñoom am na feneen fi ñu teg seeni gët waaye yow dégg nga gis nga. tamit xam nga tey nangu nga tey topp nga tey wut si nga barta gi neena na loolu dañ koy sante yalla yalla na yalla may nga may la nga muurloo ko na nga xam fi say soppi kess ñoo fi ne waye Ceerno Umar job mi xawma nak ay sëriñam nu toll waye mom wér gi mu wér pas-pas neena gisuma ku mel non de nee na ñépp nag ñu baax lañu wa ma minna gi yàlla waxoon wala jibril waxoon illa lahu maqaamun maalum kenn ku ne am nga sa garaat am nga fi nga toll waaye Ceerno Umar mii nee na moom daal place am xam na ne bu kawee la du ragal wax li mu war a wax ci boromi kanami boromi xam-xam du ko ragal wax ci borom ñu baax te suy wax du ci xalaat diwa ngi fii wala diwa ngi fi te it du contrôle sax day wax li nga xam ne mooy dëgg ci moom te it ni ko yàlla boole woon ak Ceerno Ahmad du taalibe bu ne la yàlla boole woon ngeen nekk ci melokaan googu neen xam nga yow sax jëmmi bopp sax melo woon noonu ndax léeg-léeg boo ñëwee ci Ceerno bëgg ko wax dara wala Ceerno Mouhamed Sow bëgg ko bëggee wax dara da ngay nekk foofu di wut yoon di jaar fii génn fii neen daal ngay seet ban yoon daal wala ban porox ndox ndoll nga war a jaar ba mun wax loolu Ceerno waaye Ceerno Umar mii moom bu yegg see nee na moom daal day yëg rek sotti ko ci digg mbooloo mi nee na bu neexee Ceerno kontaan bu neexul Ceerno moom yoonam newut da koy sotti ci digg mbooloo mi waaye nag comme que ku bëgg baaxal la képp koo xam ne yaa ngi dégg ay waxam nee sa njëriñ rek la lay wax du ci ragal dara nee na sànq am na ku ko fi wax kon nag Ceerno nee na Umar a jaaraama nee na lii yëpp yàlla nga ko jaaral ci yow nee na ñetti tànk cin xam nga ni cin moom ñetti tànk ci nekk en général nee na ñetti tànk yooyu nee na moom mii moom mooy sabab Dalifort yaraax ak Grand Yoff moo ci dox moo ci wax mu jaral ko ci lu ne ba yàlla boole leen ñu daaji daje nekk benn jëmm ñu nekk benn jëmm ñoom nag yàlla def ñu nekk ay magam ma nekk seen suuf waaye ñu bëgg ma ba ñoom xaw ma seen bëgg-bëgg xaw ma seen i yitte man sama soxla ci ñoom rek lañ laa xam lu ma bëgg ci ñoom rek dama koy am ci ñoom nee na nit nag mënoo ko xam lu dul yàlla boole leen ci yoonu tukki wala ngeen bokk benn soxla lu mel ni xaalis wala yu aju mel noonu yu bien yi boo bokkeeg nit xaalis oustaz ba xaalis bi jeex ngeen di séddoo te it wuute woo leen ku baax la waaye tamit gor nga yow it nee na bëri na ñoo xam ne dañuy bokk dara bu yëfi ne teeg da ngay gis jikko daal di feeñ wallaay ndeysaan waaye Ceerno Ahmad Salif Mbaye Ceerno Ahmad Diallo nee na ñii du alal de du xam-xam de du cër de ba ñu bokk ak nit ba ñu daal di xëccoog yow benn ci yooyu déedéet ndax ñoom gisuñu loolu ñoom li ñu gis mooy seen borom bi subhanahu wa taala yàlla la ñu gis seen kanam ñoom ñi dawlu nag yal na yàlla dolli yërmandeem ci ñoom yal na ci ñoom yal na yàlla teg loxo barke ci njaboot yi yal na yàlla teg loxo barke ci njaboot yi ñu nit yal nañ fi yàlla bàyyi lu yàgg ñu leen di ñaanal ñuy jokk mbokk suñu diggante comme yii nii ñu dokk mbokk comme yii nii ñuy jokkante mbokk comme yii nii Ceer Muhammad nee na ah na nga yëg ni dénk nañu lu rëy am na benn distance bu dox waaye espace distance googu ba nga def rekil ngir nga mun a tëb lu bëri sa ziyaara nee na yëkkati ko yëkkati ko nga màggal ko na nga ko yaatal ngaa ngi koy def waaye niñ ko daan defee bu njëkk nee na jullit yëpp daal daan ci bég seetal waxtu goo xam gu jamono la nga xool bis boo xam ne bu libre la nga daal di woo daal jullit ñëpp nee na daal booy woo bul woo sa mbokk taalibe cheikh yi de déedéet képp koo xam ne am na fu mu aju ceeru nee na woo ko yow xam nga dégg nga loolu mën nga ko am nga xel am nga xam-xam am nga nit ñi am nga relation bi ñun ñëpp ñu ñëw daal nekk sa wet kay comme ni ñu ne doon noom comme ni ñu doon daree Ceerno Ahmad Salif euh, nee na say rak yi fi nekk nee na ziar Ceerno Ahmad Diallo nee na nit bul daa di néewal di suufel lu yàlla suufelul eh, nañ ko màggal suñu kemtallaahi kattan nag ngeen jokkoog Ceerno Mouhamad Salif comme ni seeni waajur meloon man na man pono secours laa rek fuñ ma woo rek ma wuyu leen niñ ma woowee it ma wuyu leen kon nag na ngeen bàyyi xel ci bis yooyu nee na bis bi ñun ñëpp ñoo bokkoon xalaat bi waaye saa yu yàlla dogalee mu jot jamono jooju lay feeñ nii la ko yàlla feeñalee waaye ñett ñi ñun ñoo leen beesaloon ñu wax ñu déggoo ñu déggante gannaaw tam daaw def nañ ko sant ñeel na yàlla ren it defaat nañ ko yàll na yàlla may ñu ñu di ko def ay ati ati at nee na nag turu Ceerno Umar moo ci ne waaye Umar moomu ko de Ceerno Samba moo ko moom jégi moo ko moom ak mboolem imam yi fi ne ak mboolem délégué yi fi ne ak mboolem notable yi fi ne ak mboolem ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ceerno nee na na ngeen xam ne bis bii yéen ko bokk te bis bi ceerno Mouhamadul Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar def na ci ñaan te it ñaan na ci tey ceerno nee na wax naa ko sama diggante ak ceerno Ahmad Salif Mbaye dem nañu ba foofu mu mu wax ko Ceerno Ahmad mu wax ko yit mbiru Ceerno Muhammad ñaanal na ko Ceerno nee na moom ba Ceerno Bachir soxlawul dara lu dul xam-xam nee na xam-xam rek la soxla ñaanal na la e, nee na bu bu tombeek suñu ndogalu borom bi subhaanahu wa taala danaa toog mu toog ma wax ko mu daa mu daa ñaan ci sa kanam nee na njabootu Elimane Diallo wax naa ko Ceerno ñaanal na leen nee na ñaalu nitu yàlla yi nag nañu ko nangu ba noppi nee na li des nag mooy nga sabablu rek boo sababloo rek yàlla daal di la ciy fekk jëfu yàlla bu ci ragal nee na awma wala mënuma nee julit du ya yaafus ba wax loolu nee mbiru yalla yalla ko yoral bopam bu ñewé rek yalla daf koy defar ba mu mel ni mu wara a mel nee soxla yalla bo xamne dañ ko jaaral ci doomu Adam, nga am ndigal ci nitu yalla dafa mel ni go bu fess nga xamne dañ ko tek kaw dañ ko tek ci kaw mbartal day wacce bopam rek pousse mu dem mudem. mu dem boo bëggee nag am ndam buy dem di départ teg ci sa loxo eh, ño nga ànd ci ndànk-ndànk nga ciy ànd ndànk-ndànk bu yegsee ñu ne ah diw de moo ko andi wala ñoom diw de ñoo ko fi indi fekk yow boo bàyyi woon sax day yóbbu boppam mooy nag lu mel ni liggéey boo xam ne mu ngi mel ni liggéey Baye Thierno Ahmad Salif mu mel ni liggéey Baye Thierno Ahmad Diallo ak ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom nañu góorgóorlu ceerno nee na li ngeen fekk seeni wayu juri yore ko téye leen ko ba mu dëgër xam-xam topp yàlla ak jokk mbokk lii ngeen fekkee seen way jur yi xam-xam bu leen xeeb xam-xam donte ne as tuut la nee na barke ko ëpp ne xam-xam lu mu bëri bëri bu barke nekkul dafa mel ni ñam gu amul xoroom nee na mos na di bindal kenn nee na ñuy wax ci keneen ñu ne a ah, diw ku jàng la de dafay jàng ba yëy téere yi nee na man daal li ma bëgg man Ceerno mooy ku jàng ba yëy yàpp lay ndeysaan boo baab waaye jàng ba yëy ay téere waaye waaye jàng daal ba yëy di sàqami di laaj kirdan Ceerno daal booba gën a baax man bob la gëna bëgg kon nak yalla na yàlla dimbali ñu yalla na yàlla may ñu ñu dégg wax yi nga xamne mom lañ fi wax cero neena waxon nañu daaw wax jo xamne ju gàtt la lépp nga aju ci bir kàddu gog mo ci suratul anfal ta tàmbale ga fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum nee na yiw adduna ak àllaaxira mu ngi ci biir xoolal loolu ceerno nee na man nag mosoon naa ànd ak ceerno ñu dem ba Mali fu ñu yegsi rek mu ne cee mu jox ndigal ceerno mu ne tontu leen bu ñu waxee ba noppi mu ne nag waaye nag bul guddal de mu ne waa bismillah man tamit ma jàpp ci fattagullaah wa aslihu zaata baynikum rek ragal leen yàlla topp leen yàlla na ngeen toppante ngir jëmmi yàlla kon nag nañu ragal yàlla ñu topp yàlla nañu ànd ngir jëmmi yàlla it nee na lii bu ko ni defee yiw aduna ak àllaaxira mu ci ceero nee na waar yi ñuy waar di jàngale système ak nuñ koy doxalee yëpp génnul ci ñett ñett jumla yi ne nee na lii rek lay sarax ragal yàlla topp yàlla nañu toppante ngir jëmmi yàlla salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nangu ñaan ñu nangu ñaan teewlal ci lépp ceerno na ah bu ko de ñaan ke ñoom ñaar kenn ci ñoom moy ñaan ɓe eh, mbi yo isra do dow ɓe mbiya dow ñu nangu ñaan ngi ñaan اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولوالديهم والإخواننا والإخوانهم والأشياخنا والأشياخهم والأهبائنا والأهبائهم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم ولمن حضر مجلسنا ولمن غاب عنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا وعليهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات